gannaaw ndigal li sëriñ Muntaxa xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ndigal taalibe yépp di ñu fàttali suñu warteef ci diggante jullit ak moroom ma ci waxtu wi nga xam ne nii képp ku tane sa moroom war nga ko dimbale Touba Ca Kanam naka jekk ak commission bu mag bi ñu duppee commission sociale ci njiital sëriñ Mourtada moom sëriñ Abdoul Fattah Mbacké nga xam ne seen liggéey yépp ci jàppalante la ak dimbalante ndokk ba mu leen ca fekkee. Touba ci kanam dafa am bisu social boo xam ne bi dañ koy def par at at mu ne bu weeru koor yu teroo benn ay bu njëkk bi ba ko ñaareel ca li ñuy taxawal bis bu mag a mag lay doon boo xam ne bi dañ cay dajale loo xam ne lii dañ cay dimbalee ñi nga xam ne ñooy way néew doole yi ñi xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. ak ñi nga xam ne bi ay laago lañu ak ñoo xam ne ñi ba tey ni ma waxoon ci mbirum daara yeeg ñi ko ñooy euh, ñooñu ñëpp ci li ñuy dugg ndax bis bu mag la moo xam ne bi dañ cay dañ cay dajale lu bare bare lu sakkan a sakkan euh, di ko dimbalee way néew doole yi ku lu am lum mu ca mën a defit na ko ca def ndax lépp liggéeyal Sëñ Tuubaa ci njaboot gi la ndax déggoon naa ci menn mag mu wax ne nee ñu li mat def lépp sëñ sëñ Tuubaa def na ko doog a dem eh, amul den amul lenn luñ koy dimbale ndax li mat def def na ko xanaa yaar day luñ mën a dimbalee sëñ bi la mooy dimbale koo tane ak xamal ko xamut loolu moom moog jamono ànd li li nga xam ne may naa wax ni dimbale ko sëñ Tuubaa la daal li a def lépp def na ko li ci des moo di xamal ko xamut dimbali koo tane waaw loolu nag du fi jóg moom te ci liggéey bi Sëñ Tuubaa la bokk te it fàggu na it la nga xam ne jamono jonee ña dajeeg jooye jamono lañ ca bëgg a def Sëñ Tuubaa def na barke buñ ko mënee te loolu kenn ku xam nga ko si bopp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp damay rafetlu liggéeyu waa Touba ca kanam. bi chaklin am ca jamono yi nag liggéeyu banqaasam bi wooye al lajnatul ijtimaiya ci njiitul sëriñ Murtada Abdul Fattah ràññi ko ci lool may rafetlu seen liggéey di leen soññ liñ daa def luñ ci mën a yokk lu néew néew ñu bañ koo xeeb te def ko ci jamono jii di jamonoy coronavirus nga xam ne néew doole yi génn da leen di jafe ñëpp lay jafe waaye ci ñoom lay gën a metti nu war leen a yërëm ngir yàlla yërëm nu irhamu man fil ardi yarhamkum man fi sama nan ànd ak sëriñ Murtala Abdul Fattah dimbale leen tegaaw lu baax dee su ko yeexe borom bi nee na وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم سنورم دفع lima ma li nga xam ne li ma leen wërsëgal ngeen gaaw génne ci fii te mu fasiroon yi dañ ne ci wàllu asaka moo tax muy wax waaye nag joxe ci jëm ci yoon yàlla bu ne rek mën na cee dugg génne leen joxe ci li leen leen wërsëgal balaa kenn ci yéen dee dikkal ko fekk defe ko woon mu mu mu faatu di ko réccu di wax ne sama borom de ak neexoon nga bàyyi woon ma dig bu néew rek ba ba li ma waroon saraxe ma saraxe ko bokk ci ñi saraxe bokk ci itam ñi ñu baax ñi nga xam ne ñi eh, dañuy aji màkk nee nañ ku ku ku waroon aji màkk te aju te ak ku waroon a joxe asaka te joxewu ko bu deeyee mooy wax loolu mooy mooy mébét yàlla andi woon ko addina bam bam bam defoon loolu kon yàlla nañ yàlla musal ci ñoolu maa ngi ciy soñ ñëpp di jël sama bopp comme ni ko waxee rek lu baax moom kenn du ko yeexe lu waaye mën na ko def ndax kenn xamul ci sa bopp dara. loolu nag mbokk yi commission sociale bu Touba ca kanam di ci woo ñëpp ngir lan ñu jàppalante dimbalante gannaaw ndigalal sëriñ bi waaye it ñu toll ci jamono joo xam ne nii jar na miraas sa bopp. ngir dimbale doomu aadama yi. ñaanal bu baax sëriñ Mountakha Mbacké xalif de des mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax kat bi ñu yëkkatee lii rek moo ci njëkk a tàbbal yéeneem ci lim bu takku ci ceeb ci lim bu takku ci pepp ci lim bu takku ci suukar noonee it la ko defe woon ci basang yi nga xam ne moom lañ doon dimbalee daara yi kon nag gannaaw cant ak ngërëm ak ñaan yooyu nga xam ne nii commission sociale ak mboolem Touba ca kanam ñu ngi koy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi. te ànd ak wér waaye di tàllal loxo mboolem koo xam ne nii sunu borom dimbale na la. kon nag mbokk yi commission sociale di tàllal loxo ñëpp rawatina ñi nga xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw am nañ yéene dimbale jaam ñi te xamuñu fu ñu jaar numéro orange money baa ngi numéro compte social a ngi nii jàppale commission sociale ñu jàppale jaamu yàlla yi nga xam ne nii yitte woon nañu ko rawatina ci jamono yi ñu toll.